man bokkuma li may wax waxulu ma kenn sama bopp laay waxal te hmm? man dama yor njaboot damay soor sama njaboot li muy wax xam nga li gën a neex ci affaire yi vaaraŋ fi hmm. man ku ma génneel vaar ne jaañ moo mos a lii wala moo wax def lii nga génnee ko vaar moom jamono ji amul jotu kenn Ousmane Sonko képp la déedéet déedéet xam nga moom defal ndànk xam nga aussi tamit non defal ndànk dafa dafa ndànk dafa am ay auditeurs yoo xam ne ne peut-être dañuy wax ci nit ki te duñu xam nit ki mm-hmm. li may wax dama ne gisuma waxuma nag damaa gis di bañ a gis hmm. billaahi wallaahi barke sëñ Babacar bés bu ma gisee déggoo ma ne leen wan leen ma li ngeen ma bëgg a wan bu ngeen ma ko wanee ma dégg ko gis ko xam ne soo authentique bu ma hmm. d'accord ne d'accord ma kon fii dafa li mu wax d'accord ma ci hmm. aw ma ci droit mais pour faire force li nga li mu wax di ko gis wala di nga ko dégg te gisoo ko quand même nañ waxante dëgg dëgg la ba ne nag kon yow xoolal sa verre yi wala nanga li may wax sama daaxulaay taala parce que man mm. yow xamoo ma dundaloo ma kenn dundaluma man maay dundal sama bopp kenn mm. joxuma dërëm man maay yorel sama njaboot lu sama njaboot maa ko yor kenn du ma jox dërëm mm. xalaatuma dara ci parti bi man lépp lu ma am tey am naa ko gannaaw sama ñaq bopp dëgg la kooku moom ñëpp mën nañ ma ko seede kooku ma ko seede la ko am na nag ñoo xam ne ne dañ leen di jox ñuy wax wala ñu leen di jox pour dara man lan nañ ma defal parce que defalu ma dara dafa defalu ma dara te yaa ngi toog te maa ngi tok mos na gis ma daw ci parce que limay def dama ko gëm du tax nag limay wax ba metti sax ñuy japp nit ñi di tej nit ñi taxul ma wax lo xamne war na ko wax hmm. man mosuma d'accord plateau bi muy public SN wax len vidéo yu ma euh, youtube yu ma fi wara dem yépp invitation yu ma fi def mosuma nangu luy yàq luy tal luy saga wala di wax orma loolu mosuma ko xalaatuma ko parce que dama dugg ci politique ak ngëm-ngëm dama bëgg dugg ci politique ngir jub jubal ak yar ak teggin. Mm-hmm. waxuma nag ñeneen ñi li ñuy doxalee ak ñeneen ñi ni ñuy waxee loolu seen seen engagement la man li Ousmane Sonko ak li keneen wax loolu man li ma yitteel mooy dinaa fexe ba lépp lu may wax na nekk dëgg. Mm. bu ma demee yor sama njaboot ndax dama yor njaboot bu ma demee sama njaboot duñ ma xool di rus. Mm. waxuma ne nag am na amul dama ne dégguma ko gisuma ko. d'accord ku ma weddil ñoom ku ci mën a wax nga indil vidéo won ma ma dégg xam ne ne ah lii sa waaye ko wax dégguma ko woon rëcc na ma ma door ci wax ma agir ci boo ci agir tamit dinaa agir en am et conscience na lii d' accord ma ci. wala lii rafetlu wu ma ko. d' accord léegi léegi léegi. loolu mooy wax par rapport ak euh, discours bu mu amal ak euh, si digganteem. Mhm. ak ki nga xamante mooy le ministre de la justice mu mel ne. Mhm. ñu ci bëri nee nañu ab weer la. da koo weer ndax waroon na kaa sàngu sutura sinon nit ñi sénégalais yi ñenn ñi si seen xel xel xaw a gàttu tuuti dinañ ne rek ministre bi fii du place am matul lu mu doon wala sax mu indi sax benn mbir moo xamante ne day daal di indi jafe-jafe si gouvernement bi waaw foofu tamit nañ waxante dëgg lan moo tax assises yi amoon pour nu justice di doxale ministre de la justice

Dugg déglu léegi la nga xam te ne daanaka moom la xaw a def tuuti juumte lan laa mooy ci ñu ci débat mais li mu wax bëri na de te li mu wax wax na yu am solo ba ci ñi nga xam te ne maanaam sax dañoo nekk ci parti bi sax ba bàyyiwu leen nee na carrément ku ci saaga président maanaam du du la du la du la protéger looloo tax sama bëgg gën a leeral mbir mi sax bu ci jaaree ci ministre de la justice parce que contre da jaaree erreur sax wuma woon ci turam mais dama gën a leeral ndax moom ay waxam bu dee wax en général moom bu dee bëgg di leeral carrément bu ko defee nga mën ci comprendre man ay waxam ci discours du ko jox képp ku yàgg toog ay discours ak maanaam moom noonu noonu noonu lañ ma sa waxee waaye moom su ma nekkoon xalaatam sax wax dëgg yàlla sax daanaka am sax organisation bi mënoon nañoo bàyyi ko ëllëg waaye nag moom comme ci politique la ñu nekk la tax ñu def seen kii ñoom ñoo ko xam parce que ay affaire parti parce que man bokkuma seen parti man météo ma benn mm. sama xalaat la am na di ko wax mm-hmm. mais nag nañu nangu ñoom ñi nga xam ne maanaam comme moom day wax xalaatam nañ ko tontu ci ay xalaat ay waxin nga di ko tontoo man loolu laa d'accord ak yéen journaliste yi tamit dafa xaajaloo ñaar am na ci ñoo xam dañuy wax seen xalaat ñi nga xam dañuy wax seen xalaat par exemple comme ça dañ leen Sonko rek ànd tamit ànd nañu Sonko seen xalaat lay wax ñi nga xam ne maanaam ànd nañu Sonko ku ci mel ne seen Sama ma xarit ay sama joppaal man sama luwal am naa moom ci ay ay ay analyse am mais wax dëgg yàlla jàmbaar la moom na di wax xalaatam moom day jàpp ni maanaam keneen ku wax xalaatam ma diw la faral nan ko nag kenn ku ci nekk daal na nga respecté la xalaatu jaam mais bu ko féetalee fenn daal moom ku wax ci Sonko da day jàpp ne moom Sonko la ama te moom day toog ci plateau wax ba ne xaay sax des fois sax day débordé en tant que journaliste waaye dañ ko koy nangu daal loolu moom estime la mu nekkee estime la moo tax am na esprit boppam não é nañ não é uhum. mais não é ñaanu daal wax dëgg yàlla nit boo não nit am boobu la bu la topp maanaam booy wax ci moom maanaam mënu koo critiquer ci ay faayam mais bu ma ko bu ñaaw di ko di dugg ci biir privé ñaar rek laa xam moom sunu maay moom du ma ci dugg lu mel ne presse bi ak li mu wax ci ci xale yi maanaam ku ku saaga du la protéger yow ni ko ci waxee sax noonu la sax mais dafa wóccuwul dugal ne ministre bi daf maa dama daf maa woo dama woon vidéo bi ku gàtt xel rek xëy na mën naa leen manipuler ay waxam. te waxeewul foofu maanaam bu ñu indi gën a indi gën a leeral. moom foofu la jëlee wax ji. waaye ku xam Ousmane Diagne a comunidade ñoo ngi def à justice yeeg affaire que dois naa yu ci bëri na soppeeku te ku de ne daa jaxase dafa a sant yàlla gaasa li ko dal wax dëgg yàlla moom neexul waaye nag am nañu mboolem bu doon ci jamonoy Macky Sall que yaakaar de heure é kenn eu ko jiite di ko teg trois mois foofu ñu koy teg teg six mois ba at ñu def koo jiite fan ñu koy teg ñoom question dong la laajoon te teewul koo teg at ba ci président Bassirou Diomaye Faye moom tamit que question la doon wax wax ci ci APR sama ban la wax dégg naa leen koo convaincre ba mu defee convocation ba mu ne la ba muy jël koo bàyyiwaat bu delloo këram. dama ko Sall moom moom la woon réew mi en ah, général yaakaar naa moom moom jëlee ko def moom moom te jub jubal jubal ci lañ nekk. wax dëgg yàlla li ñu tëral bu ci ay maam maamu d'accord naa ca ñoom mais Sonko il faut que ñu ko gën a jëlee dañ ko war a gën a encouragé am ci yenn détails yoo xam su doon maay moom dugg ci dugg presse moom wax dëgg yàlla ku amee pour di ko fay loolu moom loolu état nekku ci moom. jaajëf itali léegi boo dee kawantale doom wala nga dugg oto ba nga nga fay nga fàtte fay dara su tol salaire sa kër da ngay dugal trois trois cent francs di ko fay loolu mooy doxalee te dañuy fay ay tali ñun ñu fay tamit ci lay bokk kon nag dañoo war a respecter impôt yi loolu moom wàlluma impôt la am na solo daanaka su doon may moom sax loolu ci wóor dugg daal am na solo impôt moom di nga fay moom buñ ko politique bi na bàyyi politique bi am na solo man loolu laa am ci li may wax maa ngi leen nuyu jërëjëf am na solo 33 921 49 99 88 628 4 88 628 73 45 Dieng. waaw macha allah gis nga gis nga li nga xel yeeg gis-gis. dëgg la. Mm-hmm. nangul leen rek moo tax yaa ngi siñ di réer. déedéet déedéet déedéet xam nga. kii nag euh, maanaam sax waxam ji dama ci gis ne. li mu ne man bokkuma ci parti bi sax daf koo dëggal ci ni mu waxee wax ji dal na teey na équilibré na manqué wul kenn respect par rapport ak ñoom ni ñu koy defee moo tax lim ne man bokk voilà moom moo tax lim ne bokkuma ci parti bi sax béttuma ci moom parce que ni mu waxee ci analyse bu dal équilibré gi ci ak ni mu waxee ci ay sax da nga xam ne kii voilà bokk fa daal bokk fa bokkut Pastef moom waaw macha loolu rek dama jàpp ne kenn ku nekk gis ngeen sànq li may wax ci justice mm. ne le fait ne Sonko ne euh, ministre de la justice yónnee na parce que bu ñu fàtte ne taxawaayu justice ba léegi dañugul ci noonu lay doxee. Ah. non defal ndànk li ma wax sa terrain. yi ñëwagul daal. merci beaucoup. ah léegi lan la ko lan la ko kii wax maanaam ministre la la la lan la wax lan la wax Sonko. dafa ne daf ko yónnee vidéo. Mm. loolu Ousmane Sonko ne ko mm. yónnee vidéo. Mm. ne ko kii de ci yéen la bokk. ni nu may def ak moom. ci yéen la bokk. waaw mun na ko defal li yoon wax. xam nga loolu peut-être. loolu waru ko waru ko ko woon sax laaj. jaay nangul ci dëkk yi am démocratie dëgg. ministre moom vraiment loolu am na njuumte daal xoolal ki woote léegi sax wax na ko xoolal maa ne. waru ko woon laaj même ki woote léegi sax na ko nee na nee daa. soxla si woote léegi soxla si woote léegi jamono ko nee na am na ay ah. parce que waru koon na tudd foofu non njuumte day am njuumte am rek ah, ñun ku ne xam ne su ñuy wax secret mooy yu sew mooy secret yi mais bu ñëwee taxaw wax ko ci penc bi ñëpp dégg ko non moom sax ministre bu yàgg dañuy ragal sax yenn ñi parce que naan kii ko waxee bu ko ful bi parce que Sonko moom gis nga bu mbooloo mi taxawee jàkkaarloo moom foofu lu ne mën na ko faa ba pare tey wax dëgg yàlla léegi man jàpp naa ne donte luy am la muy secret d'état non may wax eh, que sax ñëpp sax dinañ ko amati fi sax wax ko yenn ngoom jëlal ki si bismillah waaw ñu ngi lay ziar sëñ Bousso alors tabarkalla alhamdulilah jërëjëf